ñëw man la ma doon ñaan li yëpp ndekete foo la hmm. li nga wax moo ne ci man mais kon yow indil ma ci yan mandarga ba ku ko déglu kuy seetaan suñu télé xam ne bu la dalee nga mën a bàyyi xel ni yow ndekete lii moo la dal bari na ma neex na joxe fukk ak juróom wala fukk yoo xam ne ate ah, bismillah bépp doomu aaram boo xam ne nekk na ci moom hmm. ne jàpp na dara nekkul ci moom lu dul cat hmm. da gis doomu aadama boo xam ne bu cat nekkee ci moom lu mu lijjanti rek du ca am ndam mënta dugg ci benn mbir ba mu sotti mm-hmm. wala nga gis ne be doomu aadama boo xam ne bu ca nekkee ci moom fi mu ne au lieu kon mu am avancement ku ñëw rek day dem ba mën na wan ñépp yoon waaye moom fi mu ne lay ne moom day reste rek <laughs> wala nga gis ne bu dee góor la wala jigéen mm-hmm. ku nekk mën na faa ñëw ba wax waxi takk waaye heure bu taxawee ba ñépp yëg loolu dootul am léegi-léegi ndeysaanam nga yërëm ci sax jigéen ñëw ne la waa ji de nee woon na dana indi gura ba tey gisaguma ko tey ma cee ñaanam metti na danga gisit mu indi ñaari way dencante al buxu dal masriq maanaam kii fere penk mhm. kii fere saw duñ mën a fexe ba ànd ci benn kàddu ñoom ñaar benn kàddu bi rek ci kaw bu ñu nekkee ci biir kër gi. duñ mën a jiwoo waaye bu kii génnee bala moo ñëw daf koy nam ma nam. waaye bu xasee bu dugg ci kër gi histoire tàmbali. dana indil itam doomu aadama bi ay tolof lu mu dugg rek mu yàqu. mu def ba yaakaar ne loolu dana ci am ndam jafe-jafe la indil itam doomu aadama bi. Mhm. li ñuy wax gàncaxu sën. gàncaxu sën mhm. day naat ba ñëpp yaakaar ne ay mbiram taxaw mu xëy rek mbiram yëpp coupé mhm. dootul mën a fexe ba dugg ci dara mu sotti dina indil itam yaramu doomu aadama bi muy diis toujours mhm. ba bu waree jóg liggéey sax du ko man tëdd ci lal bi rek boo nee jóge liggéey mu ne man tey sama yaram dafa tayal du mën a def dara ca dafay gàllankoore noonu dafa am wala nga gis bépp doomu aadama boo xam ne seq naa ak moom ba loola war a ànd ñeneen a koy mottali waaye moom ca ñi ñuy war lay bokk du ca mottali léeg-léeg dégg doomu aadama ñëw ne la maa diw mii ba mu doonul dara man ak moom la ba mbir neexee léegi téléphone képp képp mu ne ma ko ko jox <laughs> bu ma woowu sax man bu ma koy woo du ma ko mën a jël. mbaa bu ma ko woo ma jël. ci <laughs> da gise benn jëmm boo xam ne dafay yor palaasam. Hmm. palaas biy dox doomu aadama yëpp am yaakaar ci moom mu jékki-jékki palaas bi mënatul a xëy mënatul a fexe ba xëy joxe de dépasse te pour mu xëyaan génn million ci palaas bi du dara. ñëpp naan diw diw diw bu diw jiwut léegi tey lim doon diwootoo tawarkal léegi loolu laa bëgg ñu ñëw comme limal nga ma yu bëree bëri yoo xam ne ci xam-xam yu la bokk te defe naa ni ñii seetaan danañ xam ne yooyu laal na seen jëm euh, bëggoon naa ci wàllu cat boobu parce que comme moom lim nga ci yu baree bëri mm-hmm. yan saafara moo ci gaaw ci biir alxuraan ba nit ku ko dégg man ko daw jëfandikoo mbaa nga xoolal ko sa bokk sax bari na mm-hmm. li ko mag ñi dindee ci biir alxuraan bari na boo xoolee faatixatul kitaab douze maanaam masque yi douze la bismillahi rahmaani rahim xam nga ñeenti arab la di douze masque boo xoolee baat yi maanaam bi si mi nga defe ko noonu ba mu jeex mi ngi lay jox vingt quatre. moom bismillahi rahmaani rahim. boo xoolee fukki tur yàlla ak ñeent mi ngi ci biir Faatiha. Hmm? Hmm. boo siiburee nax bu. Hmm. mi ngi lay jox cent cinquante huit. waaw. boo ko siiburee quatre vingt douze la lay jox. 92 boobu boo indee allah. Hmm. mu jox la 158 di naxbu. naxbu bi boobu. Hmm. boo siibree af waajal. Hmm. moo lay jox turu Muhammad moo tax biir faatiha boobu rek am na noo ciy liggéeyee. lépp luy cat dafay denc sa yaram. te am na ay mbir yoo xam ne bu yàlla dogalee ba nga sangoo. lépp lu la naroon a gàllankoor. ci ki nga xam ne amee na loola pour moom mu gàllankoor la ca kooka lay dellu. loolu xam naa faaw maanaam maanaam <laughs> maanaam maanaam balu teng si lay doon. Hmm. bu ci miir bi rek di ñëw ci yow. di dellu si waaw loolu yëfu sëriñ la euh, tabarakallaa xam naa ni di ma ci soxla dëgg dëgg dëgg mooy li nga xam ne nit ki mënagul jóg seeti sëriñ bi. Hmm. mënagul a jóg dem ci sëriñ Ousseynou mais mu mu mu toog dégg lii nii moo ko dal. pour mu gaaw mën a protéger ci wàllu lu muy werdu wala lu muy jëfandikoo lu muy ñaan. loolu ndax dina mën a am. waaw maanaam. man hmm. na ne. Hmm. ay boobaa day wut juróom-ñaari xobi poftan. xobi xobi poftan. xob bu ci nekk mu bind ca tabat ya daal juutam. Hmm. bu noppee mu jël loola def ko sang ab sangoo. mais mais loolu. loolu nu koy déggee xaa dafa dugg ci biir. alxuraan wala nan la demee noonu xob yi poftan nag alxuraan. waaw maanaam maanaam afalaa yatadabbaruuna alxuraan la yàlla wax. Mhm. bu ngeen ko seetantelee rek man ngeen a dem ba am ci yeneen yu ngeen ci génn. Mhm. te maa farrat naa fil kitaabi mhm. min mm-hmm. loolu mag ñi daal ñoo fexe ba <laughs> boole boo ko boolee boo ko sangoo rek uh-huh. yàlla mën na laa dimbali ci cat mu deñ <laughs> léegi ñoo ngi loolu lu am solo la mais <coughs> ma bëggoon ñu waxtaan ci feebaru jëm mm-hmm. xam nga yaa ngi doon waxtaan noonu ci feebaru yi nga xam ni dafa laal baati mm-hmm. parce que bi yu ñuy gis du ñuy teg bët xam nga lu mel ni jinne sadd la wala gàllankoor la wala nga umu wala nga wala wala cat jàpp la yooyu du lu nit di teg mais feebar bi nga xam ne daf nit da ko tëg bëtam nga xam ne docteur yi moom <coughs> dem nañ ba ne dootul wér waaw maanaam loolu luy wér la ndax yonent yàlla Muhammad moo ñu wax ni tadaawu xibaadallah fa inna allaha lam yada daan ila nasara lahu dawa mu ne du benn jàngoro bu ne ci kaw suuf lu dul bu yàlla wàcce na lu ko mën a saafara benn nga xam ko wala benn xamu ko hmm. mu wax ne benn jàngoro rek moo ne ci kaw suuf wala ñaari jàngoro yoo xam ne amul kislaay maanaam amul saafara bi ci njëkk mooy koo xam ne dafa dem ba màggat kooku mënee suuf